paa mu nekk débat sur la place publique. parce que ba mu koy wax grand théâtre la ko waxee woon. jour boobu noonu ban sens dafa amoon wax boobu amu foon benn sens. mais moom il veut être le centre du monde tout le temps nit ñi di débattre ci moom di waxtaan ci moom yooyoo ko neex dem alimenter réseaux sociaux yi yooyoo ko neex il vit que de ça maintenant le coup parti. Mhm. wax bi ñëw na jur na ay polémique mhm. ñun nit ku ñuul d'une manière générale waxuma chrétien ou musulman de. Mhm. dañoo doy waar. nous sommes tu vas voir cette année-ci beaucoup de provocation allant dans sens. Mm. man maa la ko wax. parce que xam nañ ne sujet bi fi mu toll nii laal nañ ko sensible na. Mm-hmm. par rapport au temps mën na jur polémique man na di nga ci gis façon xeetu defin bu ne. Uh-huh. façon tappale bu ne di nga ko ci gis bu mën a jur coow ak façon saytaane gu nekk. Mm-hmm. te lépp li ñu ko yóbbee c'est not premier ministre mënoon na ko éviter ñu waxtaane ko en interne. Mm-hmm. waxtaane ko ci suuf règle yañ cey jël wala décision yañ cey jël. ñu def ko ci maintenant nag c'est le musulman qui parle. Mm-hmm. ñun jullit yi ñun. Mm-hmm. bu ñu bëggee suñuy doom yor éducation islamique dañ leen yóbbu ca école ya méngoog islam. Mm-hmm. c'est contradictoire Thierno Malick ne moom dafa bëgg doomam di muuru. di roy soxna Khadija wala maam jaaro wala Umu Kalsum bu suñu maam Alhaji Malick. mu jël ko yóbbu ko école catholique. saa waay nit da ngay cohérent mu ngi mel ni ab chrétien bëgg doomam mokkal biibul mu jël ko yóbbu ko daara dina mën biibul. soyons cohérents ñi bëgg seen doom yor jikkoy jullit am éducation islamique nañ ko yóbbu ca école islamique yi c'est tellement simple pour man loolu warul am polémique wax dëgg yàlla. parents yi ñoo wara a cohérent rek. voilà maintenant nag damaa bëgg sama doom mel ni jullit yor jikkoy jullit ñu yar ko yaru jullit nga yóbbu ko foo xam ne yaru jullit amu fa bëgg nag imposer yow say loi wu jullit ca école jàmbur ah ça devient compliqué day nuroog jaay doole. te warul demee noonu nag. waaw mais foofu aussi dafa am euh, sew sew. mooy sew sew bi xam nga bu constitution bi euh, féetee kaw règlement intérieur école bi. constitution bi ne eh, ñëpp ñoom ñoo war a yem. non Thierno <laughs> ñëpp ñoo war a yem. j'ai bien précisé non xaaral <laughs> xam nga bi may wax waxuma citoyen. waaw non dégg naa la léegi waxal musulman. waaw léegi en tant que citoyen bi waxu ko fi teg mhm. parce que constitution bi woon premier ministre na dem defi DPG mhm. bi moom. Mhm. saa yi ak ñii. gisuma valeur bu mu amati. bërki de mboo la leen wax dem leen defi DPG defuñu ko bërki de mboo Ndiaye signature président de la République constitution moo ko tënk may ko hmm. doole mu def ko fi wax ne la 12 xaw ma le 13 dina dem mu jul dem. Hmm. ñu mujjee tas assemblée bi donc ñoom constitution bi saa yu leen arrangé rek lañ koy utiliser. Hmm. cette fois-ci sur cette question là man bëgguma ci waxee droit ou loi ou quoi que ce soit. ni ma bëgg ñu analyser xam mooy la socialement. lim ñu mën a yàqal parce que constitution nag. ak doole bu mu mënti am jàmm moo ko ëpp doole moo ko ëpp njariñ ci réew mi mm-hmm. am na loo xamante ne jàmmi réew mi moo ko ëpp solo nañ ko gérer socialement avec intelligence ku nekk la nga yéene ak la nga bëgg sa doom mm-hmm. yóbbu ko fa mu méngoog sa diine que ça soit le chrétien ou le musulman mm-hmm. man mënuma comprendre nga bëgg sa doom méngoog <laughs> jikkoy jullit wala méngoog jikkoy kat nga yóbbu ko école bu contraire ak sa religion si je peux le dire comme ça nañ man dama bëgg rek ñuy waxante dëgg su fekkoon nii tey jii un chrétien moo yóbbu doomam ca daara ja mu meesu sol. Mhm. sol mini sëriñ bi dàq ko wala nangam ak nangam gaw ma ne coow li dina am. Mhm. soyons conséquents nag ñu ñu ñu logique daal. te mhm. yàlla rek tax. waaw kon daal yow noonu nga jàppee ne maanaam buñ dowalee xel mu màcc rek coow warul woon am ci lii. mais bëgguma mais ana ana <laughs> Thierno ana doomu jullit dem di jàng ecole catholique te yaayam ne moom dafa bëgg mu mu yor ji koy jullit wala ana doomu catholique dem di jàngee école jullit te papaam ak yaayam bëgg ne dañoo bëgg mu yor éducation christ euh, euh, christianisme waa christianisme est-ce que loolu loolu loolu maanaam xel nangu la donc lii lañ bëgg a werante ci réew mi ku ne yóbbul sa doom fa nga jàpp ne moo méngoog moom ak éducation bi nga ko bëggal pour que débat bi jeex waaw man daal pour man ki yóbbu doomam feneen bëgg fa imposer loi wu religion mhm. te foofu du du jàng du école religion pour man koo kookoo tooy mhm. loolu sama xalaat la en tant que jullit noonu laay mhm. àttee affaire euh, ñu jàll ci ci ci beneen question. Mhm. Euh, Bassirou Diomaye Faye bañ koy tabee mu nekk président de la république ak léegi daanaka def na euh, six mois. si six mois yi comme ni nga ko waxee gis ñu déclaration politique général avant six mois doon nañ dégg la projet Pastef projet Pastef mais finalement waxoon nañ ñu septembre sax projet bi dina am. mais là mën nañ jàpp ne la 14 septembre mag en enfin le fameux projet. Euh, Maodo Malick dama lay waxaat ci ñi nga xam ne ñooy Pastef waaw mais cette fois ci ñu ngi def lancement yi. pour wane ne la 14 non barki Demba Ndiaye lancé woon nañ grand théâtre ba daje fa après théâtre lañ fa teg théâtre boo xam ne ay géwél a toog di naan Ousmane aka baax Ousmane aka maandu Ousmane a jullite Ousmane a gën ci Sénégal moo gën ci Afrique loo xam ne 10 ans ñu ngi koy wax. Mhm. Euh, am na lu ma waxoon benn jour ci plateau nee naa leen garaawaayu Ousmane. Mhm. bu tolloon ni immeuble garaawaayam. Mhm. wax ngeen ba mu wàcc ni garaawaay. amatul benn valeur léegi nag li ngeen fexe mooy garaawaayam ñu utiliser ko ba mu amal njariñ Sénégal mais Ousmane daa garaaw moom wax dëgg yàlla on en